Euh, dal ci ab dawalkatu euh, vélo dal moom mu euh, mu faat ko fa mu jaar mu fa ñàkk bakkanam mu ngi nag am la soriwul station bu RFM Mbacke néewu ab ndaw soose nag sapeur moom moo ko dal di jël yóbbu ko police jot na ci ubbi ab l'enquête dañ koy tàmbaleek accident bi nga xam ne moom moo am tey ci suba ca Mbacke ab camion virage moom moo dal di